honorable député ñu ngi lay ziar ñu leen di dalal tey amal ngeen waxtaan ci biir mën nga dikkaat ci waxtaan bi dégg naa mu nekkoon waxtaan boo xam ne bu xaw a tàng la ci biir ak commission bi nga xam teg ngeen ko tey lan moo am ci biir ak tamit lan moo tàngaloon mbir waaw xam nga nun amal nañu honorable député Cheikh Bara Dolly Mbacké président groupe parlementaire liberté démocratie mm. euh, sànq amal nañu réunion bi li nga xamante ne mooy commission bi waaye commission des lois mais ci biir commission des bi waxtaan bi xaw na tàng. ndax euh, li ko waral mooy toujours li nu war a laaj dañ koy laaj. ndax li ma laaj présidente bi mooy mu won ñu kayit boo xamante ne nun dañu koy gis ndax dañu bëgg a xam immunité parlementaire war nañu war a mën a xam exactement turu Ousmane Sonko moo ci ne wala contre X la ndax contre X kenn wu ci war a mën a dindi maraayu maraanum yu député bi ñu laajee loolu la si loolu nun li nu gis rek mooy doole la yoo xam ne état bëgg na ko jël teg ko ci kaw tànk euh, ni waxtaan naa ak président Abdoulaye Wade ñu war a tànn tànn nañu man la ñu tànn ci commission ad hoc bi ak mus président Moustapha Guirassy ngir ñu représenter opposition bi loolu mooy li nga xamante ne moo fi tënkoo. parce que dañu doon wax ne yéen tànnu leen parce que seen da ngeen wax ba seen li ngeen li nga wax nii léegi moo leen moo tax tànnu leen woon seen i ñaar nit kon loolu mujj naa am. waaw léegi nii la am mm. parce que booba mënul woon a am foofu mm. ndax li tax mënul woon a am foofu comme foofu noonu ñoom li ñu bëgg a teg mënuñu nangu loolu léegi nag bi ñu génnee waxtaan nañu tànn nañu ñaar ñi président Moustapha Guirassy honorable onze yëpp mat nañu actuellement après léegi processus bi lan moo ci des waaw onze yi jàpp naa ne huit yi moom génnoon na mm. lenn rek mooy loo xamante ne xamaguma ko muy non inscrits yi ndax Ousmane sonk ci non inscrits yi la bokkoon ci actuellement non inscrits yi xamaguma kan lañu tànn. Fatou Ndiaye ñu ngi wax tamit uh, Cheikh Bamba Dièye waaw uh, xam nga loolu moom man mënuma si dugg ndax uh, non inscrits yi bokkuma ci mm. nun li ñu sañ a wax rek mooy ndax non inscrits yi ñoom ñooy wax ci loolu ba xam kooku lay doon wala kaneen mm. waaye li wér ci wóor daal mooy nun moom tànn nañ ba pare waaw. mën nga ñoo ci biir dafa tàngoor boobu it euh, bëgg nañ nga ñu ah mais xam nga am na ci yoo xam ne daanaka moog assemblée nationale ñoo ant mhm. ndax nun fu ndajeek ñoom mënul la sedd il faut day tàng ndax li koy waral mooy bu ñu nekkee benn wala ñaarit jàpp nañ li ñu war a def nun danañu ko def ba mat sëkk nun ci amuñ ci lu ñuy dellu ginnaaw wala lu ñuy yox yoxi wala dara parce que toujours damay wax ne nun amuñu lu ñuy ragal man amu lu may ragal ndax man bi may falu di nekk député bi wootee wu ma bisu élection dañ ma jël kidnappé ma tëj ma ci kaso ba voté wu ma waa Touba génn fal ma ci ab de liste waa Touba génn ne yow yaa ñu doy Macky Sall ki mu tànn doyu leen man lañ doy loo kon lu may ragal ku Touba nekk sa ginnaaw looy ragal président Abdoulaye Wade tànn la doy loo la pour nga jiite opposition war nga ragal dara wala ngay yox yox président Wade ndigal bi mu ñu jox mooy ñu jàppale Sonko taxawu Sonko wasalaamaaleykum danañ ko def ba mat sëkk. jërëjëf euh, sëñ Abdou Mbacke Baara Dolli honorable député. Euh, euh, asafurla Cheikh Baara Dolli ñu parce que dañuy jaawale rek <laughs> dañuy jaawale rek <laughs> sëñ bi. <laughs> dégg nga li mu waxaa ah, tàngoon na. kon li nga xamante ni moom moo jaaxaloon ñëpp seen ñaar ñi nga xamante ni war waroon nañ leen fal te ñu woon ñoom duñ ko def. bañ doon wax sànq sax xëy na fii ngoon mën nañ tabb seen ñaar ñoom mujj nañoo tabb seen ñaar te nee na ndigal gi nga xam moom la ñu jot. ndax wax nañu ñan la. waaw moom si la bokk. moom ci la bokk waaw ñaar ñëpp tam nañ Cheikh Cheikh Cheikh Abdou Bara Dolly moom bokk na ci ñaar ñi nga xamante ni mooy groupe liberté démocratie euh, bokk na ci keneen nee na sànq nii lañ jot a waxtaan ak kii di nga xam ne moom mooy waxuñu keneen euh, waaw waaw moom Moustapha Guirassy parce que dañuy waxtaan ak Moustapha Guirassy waxtaan ak maître Abdoulaye Wade waxtaan ak euh, Pape Diop nee na bi ñu waxtaanee nag la ñuy door a tànn ñaari nit te nee na ndigal bi nga xam ne moom la ñu jot ci maître Abdoulaye Wade bi nga xamante ni moo leen jiite moo leen conseillé